mag ji comme ni ma ko waxee démb rek ne ko man moom ba may def woy bi di ko woy sopp bàyyi ak bëgg ko tax woy bi woy ko li nga wax rek mm-hmm. nit ki di nga woy dara loo xam ne da nga koo woy génne ko waaye fi muy teere doo ko xam mm-hmm. te génn na ma amoon plaisir bi dugal dugal morceau bi ci weeru koor gi ndax bëgg bi ma ko bëgg mm-hmm. woy ko après woy bi am na demee génn am ñu ko apprécié am am ñu ko gisee neneen ma ne ah man de maay xale. maa nekk ci yoon tey ku ma ñëw fi nag ah ci tur ci ci sama tur ñëw sukk ci sama tànku maam ji jéggalu ko ci ci turu way juróom bi bi ma bi ma woy dëgg yàlla di ko ñaan tamit eh, mu fi di ko di ma sàpp ñaan bi mu fi jógee yokk ba yëg ko xale laa Euh, loolu erreur la te it njëkk la ma ñëw ba ci moom jéggalu ko mu yokk ñu ñaan bu baax a baax a baax a baax incha allah di jéggalu tamit taalibe bàññeef yëpp waa sam kër gi ñëpp maa ngi leen di jéggalu ndax dama cee bëri ay soppe yoo xam ne amaana bii ba ko gisee xaw leen woon neex ci moom ay xare lañ di juum juum naa maa ngi jéggalu kër gi maa ngi jéggalu famille bi di jéggalu soppe bàññeef yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp waaw lii wax na man bi bu yokkaat ma ñaan bu baax a baax a baax a baax. erreur loolu tax naa yaa